bon jërëjëf ñu ngi ba tey ñu ngi ci ouverture euh, institut Talasbi, bi ñu ngi toog ak le professeur euh, Cheikh Ibrahima Fall Ndiaye moom nag moo doon def conférence bi professeur ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay siyaar sànq bi. dégg nañ tam bi nga ñëwee sànq ak li nga doon waxtaan gën nga éclaircir lan moo waral institut bi ak li ñu fiy jàngalee lu ci nekk toj nga ko. maa wax ba nit ñi tamit comprendre lan moo tax a institut bi ñu bëggoon la laaj nag yan xalaat nga am ci institut bi ak euh, Ousmane mi nga ñëw fii wala mu jaar ko par euh, Michel Bass ñu qui la laaj sa xalaat ci loolu. voilà euh, euh, ñoo ngi rafetlu suñ teewaay bu baax ci ci ci ci ci koy waxati ci cérémonie inaugurale institut qui bi liñ ci boole bari parce que d'ailleurs man enseignant chercheur la xam-xam ci fépp fu ma ko mun a def mooy sama option deuxièmement Michel Bass bi nga ne moo directeur technique bi maak moom ñoo ñoo defandoo université sama promotionnaire la depuis la licence ba master 2 euh, institut talis nag apportam ci formation euh, maanaam euh, professionnelle bi mun naa ne am na particularité particularité bi actuellement xam nañ ne élection en Afrique problème la te ba fii may wax ak yow experts yi xam ne en matière électorale bariwul Sénégal ñi ci intervenir bariwul te gis nañ ne élection mooy maanaam nekk na loo xam ne maanaam fitna la su ma ko mënee gisee noonu parce que chaque fois de ànd ak ay nit yu de ak ak viola ay ak kii ak euh, maanaam manifestation yu bari ci nga xam ne d'accorduñ maanaam ci ñu ñuy doxalee règle yi nga xam ne moo encadré jeu électoral te d'ailleurs loolu moo tax ñu sentir ne école bi war na donc œuvre ci sens boobu maanaam produire des experts électoraux ak ñoo am également seen xam-xam day màcc ci wàllu observation ak euh, observation électorale waaw parce que dañuy gis ne élection yi parfois su amee problème euh, dinañ ne su leerul rek war nañ war nañ indexé ñi am ne ñoo ko parce que li nga am ne observé nga ko boo ne leer na warul am manam manam ñi ti ñi ti ñaaw njort ba taa ñuy génn ci mbedd bi di di di di xeex voilà. école bi xamna na wax nañ ni c'est une école bo xamni c'est la première école privée buy jàngale lu mel nii fii ci Sénégal la première école privée sinon am na boo xam ne état moo ko yor est-ce que yéen en tant que professeur pare ngeen pour andak mom moom ko ci li nga xam moy mooy bi. ah waaw mënuma wax ne nag c'est c'est la première mais mun nañ né donc au delà ci formation yi amné euh, dañ koy gis ci yeneen euh, école de formation fi amna am particularité boo amné ne na défense ay sécurité ba fum mu ni sax dañ nañ mettre en cours manam ay cours yu bari yoo amné jusqu'à présent yenen université ak école de formation defuñ ko lu mel ni géostratégie yu mel ni euh, introduction à la géopolitique ak cours contentieux électoral pour xamal nit yi maanaam différents contentieux yi nga xam ne élection mun na koo jur ak procédure yi nga xam ne moom lañ ci war a am ak taxawaay juge bi ak yi nga xam ne moom mooy ay limitam yëpp lo bu yooyu yëpp euh, matière yooyu yëpp lañ bugg a développer ci institution Thales. incha jërëjëf monsieur professeur